Salut Fandi, comment on va Oui, je vais bien. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. naka bagaas yi. sant yàlla ñu ngi taxaw man maa ngi ci ba Thiès. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar. autorail bi dañ dafa corné. Mm, non non non non non non. autorail baa ngi corné. chaque jour mi ngi corné. chaque jour mi ngi corné. yéen taay sinon. sant yàlla sant fan ci Thiès exactement. waaw maa ngi dëkk Somme. Somme waaw Somme ok fan si. Mm. Ah, lii euh, mixtape waaw monsieur bi bu ma génnee ci le 4 bi la génne le 4 septembre si sama jour bés yi ma doon fêté fële ca Palais des Arts. ok da nga doon def sa anniversaire. Palais des Arts le 4 mhm. bi passé. ci la génn. alors euh, ça fait combien de temps que dans le hip hop. Euh, waaw maa ngi ci bu door a mat 3 ans ci la yem. Euh, parce que bi moo nekkoon troisième édition bi quoi. bi moo nekk troisième édition ngay fête ngay def ngay def anniversaire bi. ci nga génne waale mixtape. waaw da nga am groupe wala yow kenn la. non je suis en carrière solo. en carrière solo. Mm-hmm. ok d' accord euh, dites-moi un peu lan mooy sa engagement yow dans la musique lan moo la ci dugal. bon man euh, li ma dugal ci musique mooy premièrement passion la. d' accord dafa nekk passion ci man. Mm-hmm. mu nekk tamit lu ma bëgg. Mm-hmm. nekk tamit lu ma ci bëgg réussir quoi. tamit. deuxièmement mooy que ni jub pour yeete. jub pour yeete. waaw ndax boo xoolee titres yi nekk ci marché bi bëri na ay titres yoo xam ne que ni bon euh, bëri surtout ci jeunesse bi quoi nit ñi li may insisté ndax boo mun naa wax ni que ni li nga ci ak fi nga xam ni ndomte yi nga xam ni def nga ko. Hmm. bon mën nga ci sauver sa rakk yi nekk ci gannaaw de telle sorte que mën nañ ci mucc ko dëgg la dëgg mu gën a engagé. la de de part sa expérience de la vie. Mm-hmm. mën nga sauver manam une génération dans le fait de partager avec eux dans la musique hein? et euh, Maxime euh, c'est ce style dans le hip hop carrément bon style que world music world music moom laay def ñaareel bi que ma dance système pour euh, lancer sa

ci région yi inshallah tamit lu ñu bu bon courage merci merci d'être passé sur le plateau Fanzi mais avant tout da ngay may ma souhaiter happy birthday sama benn sister bu naan Nafi Nafi bu nekk ba Sali ba Sali tey jour birthday mu xam Nafi ak ñoo koy joyeux anniversaire Nafi happy birthday longue vie beaucoup de bonheur de la part de Fanzi bon courage merci beaucoup et le meilleur est à venir